sëñ bi Mor Gassama ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay maa ngi lay fay. yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllub koom ngay ah, gëstukat jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak yow kon daa daañu wax ak li lëmbee àdduna mooy coowal Russie Ukraine ah, guerre bi nga xamante ne tàmbale na def na kon léegi mu mat ñaar ci ay bis ban njeexital la mën a am ci koom-koomu àdduna. waaw jërëjëf loolu seetlu na ne depuis quand même guerre bi commencé. Euh, ba léegi euh, jafe-jafe bi commencé am ci àdduna bi parce que déjà boo gisee dëkk bu mel ni Russie nga xam ne dafay dafa am pétrole bu bari am gaz di ko jaay réew yi nekk Europe ak aussi yenn réew ci àdduna bi euh, gis ne aussi Ukraine comme dañ dañuy produire lu bari li ñuy wax bële di ko ci àdduna bi. ñaar dëkk yooyu bu leen tane dañoo jàkkaarloo nekk ci ci ci ci guerre donc produit yooyu forcément njëg gi dafay xaw yëngu tuuti moo tax ñu gis ne euh, blé bi léegi daanaka euh, cours mondial euh, jóge na trois cent vingt dollars euro dem na ba ba ba trois cent quarante alors que ñu ngi doon xalaat heure bi sax dafa war waxtu bi normalement dafa war a commencé di wàcc mhm. beneen bi aussi mooy baris bi bi guerre bi di commencé rek dafa yokk alors que benn weer ci gannaaw demoon na ba nekk soixante euh, soixante quatorze dollars c'est-à-dire maanaam euh, juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay euh, bi guerre bi di waaye tàmbali semaine bi mu tàmbali doon ci juróom ñeent fukk ak ben mhm. mais bi guerre bi tàmbali rek ñaari fan ñett fan daanaka dem na ba cent dollars. Mhm. waaw ñu gis ne presque dix neuf à dix jours après dépassé na les cent vingt dollars. Mhm. donc euh, ça veut dire que euh, guerre boobu loo ci mën si dégg mooy mu ngi impacté quand même négativement l'économie mondiale. Mhm. kon euh, même réew yi am doole yëpp dinañ ci yëg métit gi. waaw parce que boo xoolee réew yi am doole yi nekk Europe par exemple ñu si bëri dañuy jëflanteeg Russie surtout mu leen jaay gaz beeg gaz bi. fan yii fan yii rek maa ngi jokkoo ak sama benn waay bi nekk France loolu la may xamal naan ma vraiment déjà carburant bi cher na foofu trop. Mhm. mu dem actuellement bu demee di jënd essence ñu ngi koy jëndee presque un virgule huit mhm. euh, euro. parce que tout est ak de deux euros. Mhm. alors que mi ngi nekkoon àggutoon foofu waa dafa wàccoon te bu gën guerre bi gën continuer. prix dem ba deux euros ci la pompe. et cetera donc ça veut dire que ñoom seen bop ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy commencé sentir. Mhm. voilà euh, mhm. dëkk benn Allemagne nga xam ne ci gaz bi lu ci bëri bëri aussi de koy dépendre ci Russie dem nañ si am nañ si actuellement benn grand projet. Mhm. donc ñoo ñëpp je pense que li leen gënal en tout cas mooy affaire bi arrêté sinon forcément kenn ku nekk dëkk ak atamaña ngir dëkk yooyu rawatina ñi nekkee kon Europe comme ni nga ko limee lan moo ci pexe bi gën a jàmp maanaam solution bi immédiate waaw pexe bi gën a jàmp moom euh, solution bi gën a bi gën a jege moom daal mooy ñu ñu ñu ñu ñu ñu arrêté d' abord mbir mi fexe ba Russie en tout cas li muy li muy laaj par rapport ak euh, Ukraine ñu jéem a xool luñ ko ci nangoo lu bëri parce que lu ci bëri tey li muy laaj daanaka euh, bu dee en tant que grande puissance da nga mën nga jàpp la. Mm-hmm. même si pays boo xamante ni dafa dafa indépendant am souveraineté kenn amul droit def attaque. Mm-hmm. voilà mais liñ gis souvent mooy ne daanaka am na leneen nag ci ndax ki nga xamante Euh, nekkoon nañ fa toggoon nañ fi jamono joo xamante ni bii moom musu bëgg nga nga ànd ak kenn ba am matériel mu tiim ko. Mm-hmm. moom tey mu xëy bëgg am ko xamante ni dafay pousse effort ca moom sas cëw rek mën a jël ay matériel de guerre sa dëkk yow nga ne loolu àla kulli àll doon nag mukk mu am. Mm-hmm. voilà donc li nga xamante ni daal yaa ngi koy bañal sa bopp boo ko bañalee kële rek daanaka jàmm dana gaaw am. Mm-hmm. léegi nag euh, ñu gis ni tamit euh, lu mooy euh, Russie ak fu mu toll ci dayo gi ci wàllub koom même sax Ukraine ndaxte am na tamit yenn li nga xamante ne yàlla may na ko ko léegi nag bu li amee Russie ndax moom tamit dina soxla di génnee li mu am di ko jaaye ji bu yëfi wooyee est-ce que tamit du métti ci moom. waaw bu yëfi wooyee moom du mën a neex ci moom ndax dèjà bi mu tàmbalee ba gis nga sanction yi mi ngi mi ngi chaque jour mu ngi mi ngi daanu. Mhm. mbirum koppar koppar bi ñu échangé ak pays yi nekk OTAN yëpp presque dañ koy suspendre. Mhm. ah mode de paiement ak seen banques yi ñu ngi leen suspendre gis nañ également que. Euh, Russie équipe ba mu yeeg euh, compétition yi ba ko yëpp daanaka dañ leen cee génne. Mhm. compétition yi euh, que mu nekk Europe que mu nekk Coupe du Monde. gis nañ également Euh, avion yi nekk Russie te doon daw ci dëkk yu bëri daanaka léegi dëkk yëpp dañoo bàyyi ñëw fa finalement ñoom dañuy dañuy obligé toog wala nga xamante ni parce que Biélorussie rek lañ mën dem ak dek saa dëkk ça veut dire que yëpp euh, day gàllankoor. Mhm. fonctionnement dëkk bi. Mhm. voilà léegi nag li li ci des mooy li mu leen jaay leen jaay ñoom. xam naa ne fi ñu toll nii ñu ngi xalaat sax lan la solution boo xamante ni dootuñu ko soxla. Hmm. sauf que xëy na solution boobu du nekk lu gaaw. Hmm. du nekk semence bi fekk si loo xamante ni ay pexe loolal muy ñëw progressivement. Mhm. waaw tey mënoo nga décider euh, par exemple gën a investir ci nucléaire bi pour que mu gën a dolli si capacité de production ci li nga soxla ci énergie nga xam ne nga soxla waat ci gaz wala leneen du bëri mhm. mais loolu tamit projet boo xamante ni projet à long terme wala mhm. mais ne da nga ko soxla tey am ko suba même bu xas bi disponible tamit liggéey bi day jël temps bu Mhm. Euh, kon euh, Russie mën naa tamit euh, sonn bu fekkente ne yëf yi kon wéy na ci gàttal mais ñu gis ni yàgg na am benn lëkkaloo bu mu sekk ak waa Chine te Chine tamit réew bu am doole la moo taxit ci wàllu koom ndax mën nañu jàpp ni loole mën na tax ba Russie tenir bu baax. waaw loolu je pense que mën na nekk quand lu koy lu koy lu koy gën a encouragé parce que même boo xoolee bi ñu demee ci vote bi Nations Unies Conseil sécurité Chine na nanguto voté contre. donc mhm. mais dafa am position bu neutre li ko waral aussi mooy ne xëy na mën na jàpp ne ëllëg ñoom mën na mën na xëy pour yooyu euh, médiateur bi bu dante yaa ngi bëgg a jubóole ñaar yu xuloo munoo féete fenn ndax boo ko féete fenn rek pour jubóole nga tuuti naan féete nga pare. Mhm. moo tax mu adopté position bu neutre mais également xam na sur plan économique échange yooyu mën na dépendre mën toujours compter ci ci Chine ndax ma dafa nekk son mhm. parce que chinois yi euh, bëgg. parce que xam nañ ne bu baax a baax que euh, Russie moo a nekk allié ak ñeneen ndax jafe-jafe bu am ci monde bi ci sur tous les plans mbirum koppar même échange que mu nekk ci OMC que mu nekk euh, ci ci ci ci ci ci organisation mondiale de la santé bi que mu nekk euh, ci ci ci ci Nations Unies daanaka fépp fu nekk rek chaque fois. position daanaka Occidentaux yi ak bu Chine du faral di bokk li ëpp Russie ak Chine ñoo faral di bokk position. Mhm. moo tax bii aussi euh, certes jàppale ko mais jël na position boo xam ne dina ko mën a permettre xëy na bu mu yàggatul mhm. demee rek ba ne fële la fakk bokk rek kooku moom da ngaa féete donc moo too atti. Mhm. Euh, lu jëm nag ci dendub Afrique fi nga xamante ne ci la Sénégal nekk euh, lan moo war a nekk ci yow njeexitali tamit fii ci ñun. Euh, waaw Sénégal euh, gis nañ taxawaay bu njiitu bi am mooy ne xamal na ne bokkut fenn ci faru an an an bokkutu du du du du du riche yi comme du occidentaux yi maanaam autant bokkutu ànd ci kenn. Mhm. position bu nekk la yor. te position boobu Sénégal yor aussi moom la Union africaine yor euh, ma ne loolu da ci baax parce que quand a xel boo xamante ni bii ñun liñ ëppal solo du ki ki am dëgg wala ki amul dëgg lu ñu ëppal solo mooy lu ñuy def ba affaire bi jeex tàkk. Mm-hmm. ngir mu bañ a impacté ay négativement suñu économie voilà te bu dente la euh, position bi Sénégal am mën na ko permettre aussi bu dente ne euh, affaire bi mën na continuer pour mu jouer euh, médiation parce que nekk nañ maanaam conseil de bi mais en même temps président Macky mooy président donc li wax union africaine africaine aussi comme ay partenaire lañ mën nañu aussi toujours intervenir voilà mais Sénégal ñun ñu ngi koy sant suñu koom bi ci li nga xamante ni bii bële bi ñu importé bële bi ñu jënd ci Mm-hmm. li ci ëpp day jógee ci côté réew moom rawatina Ukraine. Mm-hmm. voilà mais en même temps pétrole bi nga xam ne koy jëfandikoo dañ koy jënd bitim réew ndax suñu pétrole bi commencé guñ ko exploité. Mm-hmm. Euh, te gis nañ ne ba léegi ñaar yëpp dafa yokk léegi nag loolu yokk bu dente ne mbir mi arrêté wul day a ko leen yokk te su boobaa euh, lay jënd bitim réew. bu dee yokk na bokk énergie réew aussi faw mu yokk. Hmm. léegi euh, produit parce que lu mooy blé bi mooy mburu bi euh, essence bi ak yooyu ba ci yan produit la mën a laal tamit ak yan secteur waaw parce que boo ne boo ne boo ne euh, bi rek nga xam ne lépp loo xam ne da nga fere farine rek donc da koy laal donc mais li si ëpp solo moom surtout pour Sénégal mooy doon mburu mi ndax gis nga fa ne passé déjà bi affaire bi yokkee ba dem ci trois cent vingt euros prix bi mënutul woon tenir boulanger mënuñu tenir di ko jaay même prix dañu obligé dañ négocier gouvernement boppam ci li mu war am ci ay taxes ak yooyu mu renoncé maanaam bàyyi ci lu mat ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar. Mm-hmm. Euh, pour que ñu mën a jaay mburu mi fanweer ak juróom te loolu sax mooy ne euh, dafa bàyyi li mu war am. mais bu doon appliqué nañ prix normal bi normalement bu la kii bi da doon jar parce que de cent vingt trois francs c'est-à-dire ñeent fukk ak ñeent ak ñeenti mm-hmm. donc Euh, de la même manière bu dante ne pétrole bi la bu yokkee rek daanaka ne ci kanam tuuti da nga war a gis ne li ngay jëndee que mën lépp li pétrole ak produit jër bi dafa war a yokk maanaam que mu nekk essence bi rek gasoil bi nga jënd ci pompe yi waaye aussi ñëpp ñoo xam ne dañuy liggéey te jëfandikoo gasoil lu bari wala wala wala wala essence euh, li ñuy dépense su yokkee forcément aussi ñoom dañuy jël li ñu jaay ñu ñu yokk ci njëg googu pour pour mën koo couvrir dans ce cas prix yooyu ñooy mën a augmenter. Mhm. Euh, côté boobu aussi peut être euh, débat danañ ci am tuuti. Mhm. ndax comme bi weesu yàggul lool ñaari ay bés gouvernement bi décidé wàññi prix yi. Mhm. prix nekk njëgu njëgu njëgu si njëgu ceeb bi ak. Euh, donc suukar ceeb euh, voilà bi mu ko bi mu wàññi wàññi njëg yi. Mm-hmm. Euh, liñ constaté <laughs> ak diwlin bi. Mm-hmm. c'est ça euh, liñ constaté mooy ne gouvernement bi ci li muy am war am ci ay mbir la am loolu daanaka tegg na ci juróom fukki milliards pour njëg googu mën a am. Mm-hmm. voilà mais comme yooyu yëpp lu ci ëpp da nga koy jé bitim réew. te njëgi bitim réew yi daanaka ñu commencé di yokkaat donc boo kon lim doon subventionné soit faw mu yokk mbaa ñu yokkaat prix mhm. mais yokk prix yi nag ci période bi moom day a nekk lu lu lu xaw a jafe ci gouvernement mhm. ndax gouvernement bu jëm ci ay élection li ko gën a yomb moom mooy wàññi ay prix mais pas di ko yokk parce nga bloqué ko mhm. mais boo ko rek mën a doon loo xamante ni mën na merloo ñi lay ñi wote su boobaa dañ koy sanel keneen xob la sanel xob te bu la sanel seen carte rek daanaka gis nga ne kon da nga nar a jóge fii gouvernement hmm. ku nekk ci wàllu ëpp li ko gën a intéressé mooy li muy def ba toogaat hmm. euh, loolu ay calcul politique la mais bu ko weesoo euh, lan la ci Sénégal mën a dund ndax euh, du métti ci moom bu fas yéene wëy rek di subventionné waaw waaw moom koy mënoon nekk lu yomb parce que bu lente ne prix yokk na te yow bëggoo appliquer des prix en tant que gouvernement da nga obligé donc nga yokk li ngay subventionné te comme que yokkoo tax moo da nga yokk li ngay subventionné sax moo kañ nga koy arrêté donc euh, foofu day métti day métti euh, mais liñ jàpp mooy ci mënti tamit pour continuer pour bloquer ko parce que bu ñu demee rek ba weesu élection yi dina waxtaan ak nit ñi dima xool mu appliqué rek des prix mais tant que àggul foofu pour mu def ko du nekkul yomb ci moom maanaam li ko def tamit dina ko def ak jafe-jafe yu mag a mag a mag hmm. ma ñuy wote wan ko lu mooy loolu tamit monsieur Gassama ñu gis ni euh, Sénégal njiitu réew mi euh, soobu na ci yenn investissement yu takku lu ci mel ni infrastructure bu yàggul dara la inauguré stade du Sénégal ak terre bi nga xamante ne barki Dembo Ndiaye la ñu yokk deuxième phase bi ak yeneen euh, loolu yëpp xëy nañu mun ko boole ci bilan politique comme mais ndax jàpp nga ni koom-koom Sénégal wala budget bu Sénégal dina mën a tenir. Euh, waa xam nga gouvernement moom moom boo ko yoree donc bu la falee nga teg sa gouvernement pour liggéey na pour am ay projet la pour jéem a dérouler projet pour jéem a fexe exécuter ko pour mën am bilan bo présenté bi sa mandat bi jeex mhm. loolu nag ñaar mbir moo mën a am rek soit am nga ay koppar nga gën a koppar réew mi def ko amoo koppar nga ut koppar bitim réew pour def ko donc nga lebi Euh, actuellement probabilité boobu mooy gën a élevé maanaam ut koppar bi vidéo pour pour pour pour projet financer projet yooyu euh, mais en tant que gouvernement tu es obligé nga nga nga nga nga lijjanti loolu. ndax mm-hmm. munoo ne fan leen naa def lii ak lii ak lii nga bàyyi ba élection yi jege si wàll ba ñëw bu la waxee nga ne ah léegi lii ko def ma ko woon même bu dee tamit diggante wala ko ndax ba may koppar. Mm-hmm. waaw d'autant plus que Sénégal yàlla def na signature am quand même Euh, mi ngi mi ngi mi ngi am toujours crédibilité euh, donc def ko ci gis nga mbirum investissement lépp mm-hmm. daanaka euh, bonut bu dente ne koppar gi fi nga ko dugal fu baax la defar ay yoon defar ay lekkool defar ay lopitaan yooyu yëpp bu la yaa ngi jël xelep ko ci dugal baax na mais li mooy nga lépp ci ci ci ay dépenses précises jënd oto yu bakkanu yoo xamante ni daanaka njariñam bëriwul noonu so boobu boobaa nag moom ngay gis ne eh, daanaka day diis ci ci dafa réew mi mhm. voilà mais tant que yaa ngi koy def pour ay investissement yoo a ni pour ay projet positif lu mhm. lu mu tëjaat lépp foo nga da dóorul la ko sinon doomu sa liggéey te temps bi xaaru kenn mhm. yaa ngi jëm ci ay élection il faut nga am bilan boo présenté donc loolu da nga mën a organiser Mor Gassama kon ngay ab économiste euh, di jàngalekat gëstukat tamit ca UCAD ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa disponibilité. ça a